Peace. salaamaaleykum waa Thiès salaamaaleykum a Sénégal euh, amati nañu ci ak contentement dalal leen ci émission bu mag bii appelée génération des arts fii ci RTT TV di jaajëfal euh, képp ku ñu seetaan bépp kilifa diine wala kilifa aada ñu nekk ci prison yi di leen ñaanal yàlla suñu borom jëlee leen fa ñu nekk ci hôpitaux yi di leen ñaanal yàlla suñu borom fëgg seen bopp tey nag ñu am gan bu mag koo nga xamante ni kenn doon ko présenté ci même réew ñu di ko wax monsieur Pape Diop PDG moom Mondial Labo Photo nekk doomu Thiès un homme sociable qui répond toujours à l'appel de la population thiessoise qui a toujours répondu à l'appel des acteurs culturels de la région de Thiès en l'occurrence monsieur Bismi tey nag ñu def focus ci moom focus 2030 la ñuy wax ndax dafa am des personnes ressources au niveau de la région de Thiès yoo xamante ni lañ fi liggéey liggéey bu am solo lu extraordinaire lañ fi def loo xamante ni nit ñi dañ ci dañ ci war a mën a bàyyi xel bu baax ba tax na tey nag ñu def benn émission jagleel ko monsieur Pape Diop mondial labo salaamaaleykum monsieur Pape Diop ñu ngi lay ziar. waaleykum salaam mon frère Bismi. am mbégte dalal la ci émission bi nga xamante ni mooy génération des euh, tey nag ñu def focus jëmale ko ci yow ci ci sa parcours ci sa liggéey ci li nga xamante ni moom nga yàgg def jëmale ko ci waa Thiès à travers tout le Sénégal mondial labo ban jaar-jaar ngay wax jëmale ko ci askan wi ak ñi lay déglu. waaw ma leen di sant bu baax bismi di leen euh, gërëm euh, di gërëm staff bi fi nekk yëpp peut-être euh, bis bi yàgg nañ ko waajal mais tey la ko yàlla dogal. effectivement. voilà léegi nag jaar-jaar moom des fois du mën a ñàkk ci doomu aadama mhm. mais du ñuy jéem a xaw a humble rek. Mhm. voilà. Euh, parce que yoonu ndaw dañ siy wax lu bëri. voilà sori na lool mais su ñëwee rek euh, voilà te euh, yàlla si àddina wërsëg la njëkk a bind doogu bind être humain nit ki si boppam su ko defee nit si àddina euh, da ngay daw rek mais danga am sa cër yàlla am cëram donc soo dawee ba am fa war a yem nga yem fa yàlla indi cëram xam fi nga war a yem nag moo jafe mooy indi des fois la jeunesse di yàkkamti soo xoolee jeunesse bi dans tous les sens da nga gis benn précipitation boo xamante ni euh, dafay xaw a doy waar euh, soo leen di xaw a yedd ci loolu sax dañuy ñuy xaw a gis seen bopp mais bëri na lu yàqu lu bëri loolu moo ko yàq. précipitation waaw précipitation man nag sam papa je me rappelle très bien su ma naan dugg si kër gi daw sax dafa naa ma looy daw <laughs> maanaam depuis ma nekk xale la ma yar si. ci dal ci dal bi ma ba ne ba ne ba nekk mag nag mm-hmm. mu mu apprécier ma ci loolu mm-hmm. parce que def naa ne man li ma jaaxal yow yàkkamti woo sa dara ma ne ko yaa ma ci yar <laughs> voilà te valeur yooyu dafa niroog sax euh, de nos voilà ça a pourquoi parce que euh, man maa ngi euh, maa ngi jàngee benn école benn village bu ñu naan Kër ma Madiabel Kër Madiabel voilà la région du Sine Saloum dëkk Moustapha Niass voilà jàngi sama cycle primaire yi fa laa ko defee. Ah voilà fa laa ko defee euh, mu mu dafa yàgg dafa yàgg c'est-à-dire que ay euh, année 72. 72 oui dafa yàgg. Euh, amuloon courant. Mm-hmm. à l'époque. les serpents circulaient. Oh. ak jiidi. Mm-hmm. voilà. Euh, donc euh, nga jógee dëkk bu am làmp sa papa am dara. Mhm. nga dem si village bi pour ñu yar la ngay jàng école jàng alxuraan. Mhm. Euh, nekkook say nekkook sa baay c'est très difficile. mais ki ñu nekkoon nag mu yor ñu parce que suñu rakku papa la moo suñu papa ñu bokk ndey ak baay. ak suñu tànt bi fi nekkoon. Mhm. yàlla na ko yàlla na leen yàlla yërëm. voilà donc ñu jàng foofu daal di ñëw. bi ñu ñëw it vraiment dem Dakar ba léegi ñëw ñu Thiès. dem euh, Dakar voilà voilà duñ dem Dakar. voilà dem Dakar euh, di jàng métier. jàng métier maanaam di jàng euh, nekk école de la Fosse ak beneen école. de la Fosse di def tis parce que maa ngi sama BP en électricité industrielle. dégg nga wax ci ah voilà parce que àddina. Mhm. soo waree jàng métier da ngay jàng métier. voilà mooy li ma la wax rek la wërsëg yàlla moo ko yor la lay teral aussi yàlla moo ko xam. mais soo tollee ci jàng ak ak jàng mécc ak jàng jàngal. Mm-hmm. mais du caaginu la ngay jàng moo lay jox la ngay am ëllëg wala ngay dundee. effectivement voilà loolu aussi nit ñi duñ koy jaawale. Mm-hmm. voilà bi ma nekkee foofu non seulement maa ngi jàng mais je faisais la photographie en même temps. dama ko boole woon parce que j'avais j'avais cet amour mhm. pourquoi parce que je faisais de l'art damay dessiner dama doon def abstraction graphisme mhm. ak collage peinture yëpp ah laa doon def jeune voilà j'ai j'ai été toujours dégourdi dans ma vie étant gosse mhm. voilà léegi nag bi ma demee tool toog nekk ak sama benn nijaay boo xam dafa daan photo ma gis photo temps yooyu chambre noire nga dugg dugal cliché génne tout ça développé à l'époque jamonoy Kodak pas de filtre Kodak voilà donc développement bi noonu la woon dangay ngay génne dugal si biir chambre noire génne teg si tout ça question voilà donc c'était sa bon après amour bi laa dugg et puis cet art de la photo là nga xam ne boo mm-hmm. photo le fait que pour nga pour nga mën ko génne mm-hmm. il faut nga dugg ci benn genre studio voilà euh, mu nekk euh, chambre noire chambre noire la tudd chambre Voilà, chambre noir Il le révélateur, le blanchiment et le fixateur. Euh, révélateur, euh, blanchiment, blanchiment, fixateur. Voilà. Okay. voilà. loolu il faut mu jaar si pour mhm. cliché bi gën a neen nga mën a gis nit ñi ni si cliché bi. si chambre noire te loolu yëpp warul gis lumière. lépp dans l'obscurité moo tax ñu naan la leer mi ngi jógee si lëndëm. voilà c'est très important voilà l'afrographie c'est dafa doy waar. ba nii nii nii on est numérique mais lépp rek si lëndam lay jógee doo génne si leer. je te dis Bismi. jusqu'à nos jours jusqu'à nos jours. <laughs> peut-être am na différence parce que chambre noire bi moo amatul. si chambre noire am na parce que les photos photos yu ñuy génne nii photos yi. waaw chambre yi photos yi ñuy génne. pour monter papier bi papier bi du gis lumière. ñun fu mu nekk nii foofu ma nekk la boobu am na chambre noire bu ñu dugg pour monter papier bi si magasin bi. doo ko génn dugal si machine bi. si machine boobu buy dugg duñ ko defar telle à telle sorte que du gis lumière tant que photo bi génn. d'accord lumière saa bu ci duggee rek doo am photo. mais du tee dañ ko xaw a moderniser. voilà dañ ko moderniser. parce que bu njëkk nit ki dafay dugg ci biir chambre noire bi. mën a liggéey li muy liggéey génn. génn mais léegi. la photo tout simplement muy dugg ci chambre noire. non génn waaw léegi léegi non moo daal ëpp na loolu sax technologie bi. parce que léegi imprimante moo xew. waaw cest dire que léegi mën nga mën nga génne sa mën nga génne photo tiire ko te doo dem doo dem chambre noire. mais impression lay doon imprimante lay doon. imprimante mais su fekkee produit la il faut mu dem chambre noire. ok chimie quoi je veux dire. parce que à partir de des portables. Euh, ñu ci ëmb dañuy jël par exemple mm-hmm. ko ñu génne ko de telle sorte que effectivement. effectivement lépp ci côté chambre noire bi. parce que fa la cosaanoo ko si. voilà léegi lëndëm buy génn si biir leer rek cest à loolu la rek. leer buy génn si biir lëndëm. même kàddu gi la même kàddu gi la. ok voilà même kàddu gi la donc euh, voilà. te lu lépp base bi fan la woon Dakar bi nga bi ma jàngee. waaw euh, nekkook say parents. maanaam soo bëggee am dara il faut nga sonn. sonn waay bismi il faut nga il faut nga sonn. voilà donc jaar-jaar bi loolu la c'est après que bi ma jàngee Dakar ba am sama diplôme. Euh, on a essayé de me retenir à Dakar. comprendre c'était dans les années 72 73. non non non 72 mu ngi fekk Kër Madiabel. Kër Madiabel mais lii c'était dans les années 80. 80 voilà. ok dans les années 80. te boobu photo am dafa am valeur boo xamante ni euh, boo photo nit rek daf koy jaral lool. waaw photo dafa am valeur. parce que je me rappelle jamono bi ma lay wax ni ñu mu amoon chambre noire ñu dugal cliché yi. boobu pour développer yenn film yi sax dañ ko daan dugal ci enveloppe euh, yóbbu ko en France indiwaat photo yi. indiwaat ko voilà te xam nga loolu yàggul. yàggul kay. ça fait pas longtemps analogie bi la woon. waaw analogie la woon donc euh, voilà. waay voilà. après quinze euh, vingt vingt jours après vingt cinq jours un mois photo yi dellu si dellu nga jël say photo Okay. Tu vois ce que ça fait léegi gis nga technologie bi mu avancé. voilà mais pour revenir sur ça. Mhm. Euh, ma dellu si Thiès. on a essayé de à Dakar ma dellu si Thiès boobu commencé naa photo Dakar ba am sama carte professionnelle. boo tax quand je suis revenu à Dakar kenn mënul wax ni Pape Diouf photographe la nit ñi xam ko. Mhm. non non non les gens xamuñu moon ci loolu quand même ah. ci woon mais lu mu ci mënti noonu rek bis mhm. àddina looy dugg lu ne. Mhm. da nga siy dugg ak fulla. on te dit que y' a pas de chaud métier dans la vie. non non voilà nit loo loo nekk am ci fulla rek mën nga ci tedd. effectivement. mën nga ci tedd parce que moi je me rappelle. Mhm. bu ma ñëwee Thiès gàddu appareil di photo. boobu sama bu góor mënoon na. mais nit ñi duñ ma doon reetaan. <laughs> tey mun naa la wax ñoo xam ne sax dama leen ñii ak ñii nga xam da nga leen di xam duñ ma doon reetaan ah Pape Diop da day photo léegi. duñ koy ñàkkal fayda. di ko ñàkkal voilà mais problème bi nekkul foofu. ñoom du ñu xamul. Uh-huh. mais yow mi koy incarné mooy problème bi. dëgg la. voilà yow mi koy incarné. voilà. moo tax yow ma naw la. Hmm. voilà vous êtes artiste. Hmm. da nga koy incarné. soo nekkee photographe da nga koy incarné maanaam soo dugg si milieu fexe ba ña ngay fekk si milieu bi. nga gën leen a correct. si habillement loolu dafa am solo. dafa am solo ci doomu aadama le comportement. Hmm. parce que grand pape man dama gis ne yow toujours est-il que Pape maanaam bu ñu ne position wu mille dépassé nga million jusqu'à nos jours parce que da nga ko yàlla incarné moo xam par exemple des photos d'ambassade lu ñu ci moti doon il y a des lu ñu soxla tous tous tout ce qu'ils ont besoin dañ lay woo téléphone ne le tel jour dinaa jaar nga photo ma parce que sa photo moo am qualité mais par exemple pour gañ nga gagner par euh, loolu ci euh, espace boobu ci biir ci biir doomu aadama yi mais comment ça se fait def ba mën a conquérir ñooñu ñëpp ci loolu waaw nit incarnation la voilà incarnation gis nga népisme euh, da dangay civilisé am yar être correct daal di am daal di humble cest dire que gis na nga yaakaar ni moo la gën. Mhm. voilà ça n'a rien à avec votre personnalité. du ñàkk fayda. d'accord voilà mais nit da ngay am yar. Mhm. voilà base de données bi yar la. Mhm. démb rek la ma la ma la ma Samir woo bu croissant. je lui ai fait photos. waaw voilà. loo xam ne da koy moom da ko soxla da koy dugal comprendre que voilà euh, euh, euh, Ousmane Boudib noonu la. il m'appelle toutes les personnalités suñu soxlaa yu demee noonu yoo xam te ni. mais ñu lay woo parce que la photo est universelle mënul ñàkk. voilà photo ah mënul ñàkk. Ah voilà mais la la photo ça parle c'est de l'art c'est l'art mais justement. parce que par exemple voilà il y a quelque chose ko xam. mënuloo xam yow yow xam nga li ma wax c'est de l'art. bien sûr voilà donc euh, des fois quand je fois nit des fois sax di def photo. Mhm. ba pare mili bu mu photo mu changé fond bi ma ça me fait très mal. Hmm. ndax lecture ba day réer. daa war a naturel. dafa war a naturel. et et c'est dommage parce que voilà. de nos jours. gars yi dañuy am montage yoo xam ne dafay extraordinaire de trop. Hmm. mais loolu des fois nga dem ci benn milieu boo xamante ne fii àll na ci ginnaaw. tu des arbres mais mais loolu dafa naturel. bi. te nit ñi loolu lañ soxla. waaw nit ñi loolu lañ soxla léegi soo ko dindee ça ça n'a plus de sens. déedéet parce que du temps bi sax du figuré ti. non non non. léegi waxuma waxuma waxuma waxuma guy yi ak yooyu nga gis de. waaw mais même le temps. Hmm. day disparaître. dëgg la. voilà donc loolu su nekkul artist mun la ko xam. mun la ko xam ko xam. voilà mun ko xam. mais comme que man da nga ko bëggoon. Hmm. il faut que yàlla may la si tuuti temps soit. parce que defe nag yow aussi. Hmm. nga nga jéem ko fulal barkeel ko mu dem. dëgg la. dëgg voilà dëgg la euh, donc moi je crois que je crois que c'est ça. c'est ça oui mais toujours est-il que ma demaat ci beneen question laaj la aussi yow euh, sa relation avec euh, toujours les Thiessois les Thiessois ak investissement yi nga jot a def au niveau du de Thiès et aussi à travers le Sénégal parce que déggoon naa ni am nga aussi yeneen place hors de Thiès moo xam Saint-Louis wala Gambie. voilà euh, tes waaw j'ai j'ai essayé. Mm-hmm. parce que Diourbel Tivaouane. Mm-hmm. Euh, Ngaye Mekhe. Mm-hmm. Euh, ak euh, ak Saint-Louis. Saint-Louis. voilà mais bis comme comme comme je te rek ba ma koy def. Mhm. y' a y' a quelqu'un boo xam te ne moom ma njëkk a jaay machine euh, Abba Abbas Vasni. Mhm. naar la Abbas. juillet ma laaj ko mu ni ma investissement boobu Pape Diop baaxul parce que sénégalais yi. Mhm. soo teewul rek. duñ duñ la mën a yoral sa alal. dëgg la te yow mënuloo nekk fépp. non c'est impossible. voilà. donc euh, premier problème bi ma njëkk am si àddina avec ak ak banque. waaw loolu la. investissement boo xam ko def ba pare. te teewuloo machines yoo xam ni dix millions douze millions quinze millions dans différentes régions j'ai eu des problème waaw waaw finalement bi ma xamee ne dama jëlaat machine yi jaay ko ma am gàbbu problème à la banque. Mhm. j'ai eu beaucoup de problème waay voilà benn alal boo xam ne fay naa ko durant trois ans mu metti woon lool. investissement boo xamante ni amuñu la ko yoreel. correctement amuñu ma ko yoreel amuñu ma ko yoreel ma ni Abbas a eu raison sur moi. voilà mu arrêté sama lépp. j'avais même des biens ay terrain titre foncier dama ko mujj jaay dugal ko ci. tu vois ce que ça fait. pour mën a fay sa bor pour fay sama bor. parce que euh, euh, euh, quand tu paies tes dettes rek tu tu s'enrichis voilà. waaw ah qui qui paie voilà donc su fekkee da nga nekk nitu jom. Mhm. loolu gàccee la. Euh, il faut que nga il faut nga def loolu. dëgg donc coup boobu mënuloo mënuma woon dal ci àddina parce que. Mm-hmm. gënuma ñu ngi dal te àddina noonu la. dëgg la yëpp expérience lay doon. expérience voilà finalement euh, da ngay mujj dem si leneen yor sa structure toog fa mm-hmm. gérer mm-hmm. parce que accueil bi nga bëgg. ak représentativité bi nga bëgg. ñeneen ñi soo duñ ko mën. parce que liggéey bi moo am moo am lu mu laaj. dëgg la voilà. c'est liggéey bi moo am lu mu laaj. léegi nag comme que mënu la ko bàyyi. di mhm. préfère fa nga nekk defar ba mu baax nga nekk fa. Mhm. pour sa expertise mën a mën génn. mën a génn effectivement voilà sur le plan technique nag. Mhm. wut na enfin voyagé naa wut xam-xam boo xamante ni vraiment. waaw parce que déggoon naa fi dem nga à l'extérieur. oui oui oui oui. oui sur le plan euh, voilà technique. da nga acquérir une certaine connaissance. surtout sur les identités parce que euh, tubaab bi toujours du ñuy sonal ci photo xam nga tubaab xamewul nit ku ñuul. jusqu'à nos jours. jusqu'à nos jours. waaw soo fa demoon léegi su gisee kii gisaat dafa naan kii la gis xamewuñu. xamewuñu moo tax toujours. Mhm. ñu ambassades yi nit ñi di ci sonn. Mhm. tous les ans dañuy dañuy changé naan lii lañ soxla lii lañ soxla lii lañ soxla. Mhm. parce que xamewuñu nit ku ñuul. xamuñu nu kii bis mooy bis mi kii mooy kii non ñoom ñuul rek lañ xam. dëgg la kay. voilà. donc moo tax ñu indi données données yu bëri. si numérique voilà ay données biométriques. Mhm. données tel tel tel. Mhm. indi yu bëri yoo xam te ne daal. Mhm. dafay tënk nit ki. finalement muy sonn pour mu voyager. xam nga photo rek suñ si rejeté document. c'est compliqué. dafa compliqué. voilà ba tax na yow aussi tamit dañ def naa. voilà na ci ay pexe. yoo xamante ni yow mm. une fois ñu la sa labo mm. defe naa ni ambassade bu ñu dem bu ñu ñaanee visa dañ lay may mais justement que ñu bari dañu pour les green cards uh-huh. la cinq sur cinq données biométriques ouais. on a le Canada cinq sur sept données biométriques ouais. mais Union européenne mooy def 45 35 comme le le le Sénégal Union européenne. voilà donc euh, dëkk bu ci nekk dafa am format bu muy demandé xam nga loolu amuloon. non non photo d'entrée lañ doon wax. Mm-hmm. voilà ok donc loolu yëpp ça complique c'est amul formation xam noo koy defee ba mu ba mu nekk. dëgg la nga enveloppe yi accepté ko. Mm-hmm. si àddina am dafa am jàng. effectivement mm-hmm. léegi y a de photographes mais soo leen nee photo ma. dañ la génn photo rek. mais pour nga ñu def ko ñu def ko biométrique. en PDF ou en JPEG loolu yomb na mais ñu def ko en biométrique ça va être xam sax li nga wax lan la. Eh. voilà te te dafa xew. effectivement dafa xew dafa xew moo tax nit ki looy nekk rek. Mhm. da nga ciy gëstu toujours. moo dëgg sa am ci xam-xam toujours. day mise bu baax a baax te tubaab bi moom la ñuy def quoi. dëgg la kay. voilà donc euh, loolu la rek avec avec ay kiosque parce que mhm. Mhm. Euh, dans photo. dafa am papier. photo ambassade dafa am papier bu mu war a doon. du n'importe quel papier. ah bon loolu dafa am solo papier yi gars di déedéet que am na papier yoo xam te soo defee photo photo bi day dégradé. yàqu day yàqu. day dégradé. bu fa am benn spécialement c'est conçu pour la pour les photos. waay photo d'ambassade et consort. ok léegi nag loolu moom la am te man rek maa ko am Thiès. ah bon waaw parce que so parce que. mais est-ce que ñoom nga xamuñu ko xamante dañuy photo. Uh-huh. Euh, par exemple pour seen passeport est-ce qu'ils savent cela. nga xamante ne Pape Diop. Mm-hmm. à part yow. Mm-hmm. amul keneen ko fi am au numéro Thiès. doo danañ def fay photo mais appareil bi ma yor matériel bi ma yore man rek maa ko yor. pour génne de d'accord nga xam ne papier bi. waaw ciseau moo ko dagg loxo mënu ko xotti nii. ok ah non non non te du dégradé voilà. aussi longtemps possible. aussi longtemps possible. d'accord garanti. voilà solo. voilà donc rouleau ça coûte cent vingt mille francs. ouais. tu vois. oui bokk bokkal ak rouleau yi ñuy jaay papier yu jël quarante cinq mille. y une différence. non am na différence bu mag yooyu pour identité rek la. moo tax am na ñu ko xam à chaque fois les gens du ñu yaakaar ne moo njar rek moo fi nekk moom mooy photo les gens viennent. parce que ñu xam nañ lu baax. effectivement te gars yi fi mu toll nii. doon xam nañ lu baax lu baax lañ bëgg. lu xam ne lu garanti. Mm, mm. waaw mais à part ça côté culture. parce que da nga gën a impliqué wu ci culture. Mm-hmm. parce que man damay natt rek sa jël exemple sama bopp. Mm-hmm. Euh, ça fait plus de quinze ans dama daan organiser le plateau mm-hmm. mais chaque fois bu ma ñëwee jël la comme partenaire da nga may sponsoriser du la fin. damay ñëw wax la programme bi nga ne ma dinaa jël lépp en charge. damay organiser ay concert interquartier. Mm. def naa ko buntu ko Ngent jàmm gën Medina Fall mais fépp fu mu mënti dem mais da may accompagner ba man damay tiit quoi. Mm. mais cet amour de la culture. Mm. yow fan fan la la fan la la inspiré fan la jógee. waaw mais Bismi. xam nga dans la vie. Mm-hmm. fii ku ñu ku ñu jàppale rek moo fi am. dëgg la dara xëyul sotti. dëgg voilà mais ka ngay jàppale da nga ko fay da nga ko fay da nga ko da nga ko ciy fekk. effectivement ndimbal la ci fekk loxol borom. voilà ndimbal la ci fekk loxol da ngay fekk nit ki mu bëgg dara loo xamante ni option bi bëriwul. Mhm. comme vous. Ouais. cest à que mhm. da ngay gis ni kii par amul bëgg ni lii option bëriwul maanaam ñi opté pour def loolu bëriwul. te nga yow nga xam ko nekk ci milieu bi. Mhm. doo def lu dul accompagner ko ci loolu. effectivement voilà te parce que soo ko deful du sotti parce que man. Mhm. dañ ma accompagner keneen ak keneen ak keneen. moo le premier appareil que j'ai acheté. Mhm. sama papa moo ma jox cinquante cinq mille. à l'époque à l'époque. loolu xaalis bëri bi pratical la woon. pratical voilà. ma mu abal mu lebal ma. mu lebal ma paa mu lebal ma ma dem 4 mois cinq mois après ma ne ko papa am sa xaalis ak nii. fay ko fay ko. waaw appareil boobu dafa barkeel. parce que à Dakar j'ai des marchés de de de. Euh, si si quatre mois dama ci am marché deux millions trois millions tel tel tel toutes les collèges de Dakar man maa doon def seen photo identité et carte carte d'identité. lépp à partir de cet appareil nga ko de cet appareil. barkeel rek moo am solo. Euh, bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy interdire les voiles là au collège Sacré-Cœur de Dakar. Dakar oui boobu man maa fa nekkoon ay même mu ai même discuté avec Charles Biagui c'était le directeur de l'école. à l'époque à l'époque man maa yoroon cours Sainte-Marie maa leen yoroon. Euh, institut islamique. bu Dakar bu Dakar bi ñuy defee photo Ujaaji. Ujaaji avec El Hadj Rawane. Rawane Mbaye El Hadj Rawane Mbaye man la joxoon marché identité yi. oh là là. depuis trois ans après la ndem si yàlla jong ñëw jël ko si man. jong men jong mooy ki créé Labo Jong. Labo Jong waaw te mu gën a. voilà te j' pas Dakar waaw donc j' étais très dégourdi. léegi laa toog quoi quand bon voilà. donc donc donc donc c' est ça léegi nag euh, yooyu soo si jaaree. Mhm. gis jeunes yoo xamante ne vraiment duñu bëgg a dem. Mhm. te ñi ngi forcé soxla ñu àllu jàmbur du ñu bëgg lii la ñu bëgg bëgg see dem. gëm seen bopp mais il faut nga il faut nga. nga tànn leen la mais nga taxaw leen. d'accord di waxtaan ak ñoom. Mhm. voilà. et puis tu l'as fait parce que euh, maanaam nit ki bu defee lu baax. bu nga am sañ su wax ko. wax sa mbaaxu waaye du wàññi dara ci sag baax. parce que da nga ne maam je suis Thiessois. Hmm? je suis un entrepreneur je suis un chef d'entreprise nit ki am na audace organiser une manifestation boo xamante ni xaaru ci dara te noonu la demee woon. Hmm. c'était tout simplement pour faire la promotion des artistes. je sais je hmm. loolu ma sa jox ci manifestation laa ko def léeg-léeg ma ñëw sax ne la mais grand estrade bi day manqué na xaalis. nga yëkkati nga yëkkati beneen enveloppe pour temps teg ko ci taaba ji. da ngay dem ba yow sa sa sa personnel. dañuy jaaxle ci maanaam. Euh, ñun ñaar suñu diggante ni mu. c'est vrai c'est vrai c'est mm. kon donc loolu. Euh, yow da nekk nit ko xamante ni euh, tu es un exemple. Mm. man de à travers cette télé muy mm. bëgg waa Thiès gën a xam yow yaay kan. gën a xam seen doom gën koo jàpp bu baax a baax a baax lépp waaye am. Euh, bëgg maanaam ci wàllu ci wàllu photo. photo lu mu ci mënti doon. Pape Diop mondial la bu ouvert ses portes muy fii jàkkaarloo ak Auchan bu Thiès. boo wàccee raay bi. parce que c'est des exemples yoo xamante ni nit ñi dañ leen war a jàpp haut et hmm. te yow aussi tu contribues au développement de la région de Thiès parce que wane nga ko auparavant te tamit dañuy wax que ni avec cet ce, ce nouveau gouvernement là. Hmm. Euh, jot na ñu ñëw hmm, vers la population de Thiès. jot na ñu ñëw jëm ci ñi nga xamante ni dañoo taxaw pour la concret. te yow vous en faites partie. kon da leen ci remercier bu baax a baax. mais côté culture. kan mooy sa artiste préféré ak ah, aussi tamit euh, yow lan moo la gën a mën a poussé tamit mu nga ne par exemple Bismi pour euh, comme li mu jot a def. am na yeneen perspective d'avenir qui se passe. Mm-hmm. yow sa artiste kan la au juste. man sama artiste Sanekh la. dans l'art. Angèle. Ah, <laughs> dégloo ba de. Sanekh. Sanekh la. am ngeen complicité. non. xamante wu leen. non. Sadio est ñoom ñoom ñoom ñëpp nag. waaw fële lañu ñu def identité ci man ma sëf ñëw su def identité yàgg na. ñoom Serigne Ngaye. ñoom ñëpp. voilà ah loolu fort la. moom. Cheikh Seck waaw. Omar Seck ñoom ñëpp c'est des amis. ak ak frère bi nekk Kaaw. waaw ñoom ñëpp c'est des amis. waaw parce que kooku saa yéen giseen toujours. mais je te dis que euh, sama artiste préféré Sanekh la. bien vrai qu'on lan moo la liggéey ci moom non parce que euh, dafa am loo xam te ni nit dina ko wut mais dafa am xam ne yàlla moo koy may doomu aadama. ndeysaan. voilà yàlla ko da ko may. je te dis. Mm-hmm. voilà c'est <laughs> loolu moo tax maa ngi lay voilà <laughs> yàlla yàlla moo ko may. Uh-huh. man dama dama doon xalaat. Mm-hmm. dans la semaine ak semaine yëpp maa ngi xalaat pour xaw ma nan laay def ba jàpp jàppandoo ak ay nit ñu boole fexe nuñ koy nomee sargal ko def ko meilleur meilleur meilleur artiste. a nekk. parce que gis nga li ma gis. yow ngi ci yaa ngi ci yaa gis am na ñeneen ñu ko gis. ci télé askan bi nga nekk de. voilà loolu c'est-à-dire que Thiès bis mi. ana Seck yaa ngi déglu euh, li li euh, doyen wax. Thiès dafa bëgg sargal ki nga xam ne mooy Sanér. voilà kon donc loolu defe naa ni mën nga ci en en collaboration ak RTT TV. Thiès waaw. on a on a les artistes Sénégal. lépp a ngi Thiès. lépp ngi Thiès mais le meilleur artiste du du Sénégal c'est Saner et je te parle en connaissance de cause loolu yàlla moo koy def. comme ñu ni rek le meilleur chanteur mbalaxtu si Youssou Ndour yàlla moo def. loolu don boobu yàlla may na ko Sanex ci li muy def. waaw il est polyvalent. te xamante wu ñu de. Mm-hmm. xamante leen moom déedéet. te je te parle en artiste c'est-à-dire que soo gisee nit ki nu muy dégager. Mhm. lu mu def lu nekk mu jox gëddam ak lu mu ci apporté. Mhm. da ngay xam ne lii du du du jàng du nekk. moom sax dafa am fu mu jëlee aar yi am fu mu ko yóbbu. am fu mu ko yóbbu. waaw voilà man saa neex rek moom moom moo ma mën a reetaanlu ah c'est-à-dire su ma tëddee nelaw am problème saa neex laay seetaan après je. daal di fri. voilà daal di. moo tax lan dañu naan l'art n'a pas de prix. non l'art n'a pas de prix. l'art parce que di nga stressé wu di nga am problème déglu artiste wala nga déglu benn mais lépp lay déglu nag musique yëpp lay déglu fi may gis nii. Mhm. melomaan la moo tax soo ma nee kan mooy kan mooy sa artiste may la saaneex du lu ndaw. dina <laughs> la jaax du lu ndaw. génération des arts <laughs> mais côté musique lan ban son nga bëgg ñu may la ko comme ça euh, moo xam côté hip hop parce que yaa ngi ne musique yëpp ngay déglu mais côté rap est-ce yaa ngi déglu les rap. waaw mais je connais pas les parce que c'est des porteurs de voix. non non non rap rap moo fi ne léegi. Ah. ah oui parce que euh, way yi pour nga déglu léegi wàll yi damaa ko doon déglu sànq du ma xam lu muy wax lan la ko Badou waaw c'est-à-dire que <laughs> mais rap. Ah, ah, waaw booy dégg hmm, commune bi man auparavant c'était pas ça mais une fois ma dugg sama oto teg dégg voix yi ma ne attends. waaye waaye mais léegi attends mu wut sama benn clé def ay rab yu yu kii. yu baax sooy waaw nga xam ne sooy day yeese. non mais da ngay dafa am humour. déggu ma xoolal xoolal. daf lay yee ba am humour. dëgg ni ñu koy ni ñu koy libalee. tout ça riime ko. non léegi booy dañu non mais c' est c' est c' du ñu indi beneen forme de musique boo xam te ni. Uh-huh. yàlla daal moom moo mën a may rek. ndeysaan. voilà mais. mais est ce que ci ko defee ñu may la benn son wu soit ban ban. Euh, est ce que je je kii ni ñu ko waxee waaw fàttali naa tur le connais mais j'ai son nom. Il est, est il, est, il, est, il est Dakar maintenant. Uh -huh. C'est un gars correct la non booy mujjee génn ñu njëkk génn ñi la. njëkk a génn voilà il est bien. beaucoup de personalité booy xam nu tudd booy xam na tudd. d'accord mooy mooy jarbaatu Jackie Seck bi rek. ah Bibson. Bibson voilà Bibson voilà. waaw Babacar koy benn son bu Bibson comme ça ñu. voilà. xam nga fii <laughs> benn Larry Gibson moo nekkoon Rapa Joe. c'est un ancien parce que moom actuellement il vit aux États-Unis ok moom aussi mu ngi koy représenté foofu. xibaar même bu dul xibaar déglu leen it's all about reality déggu leen xale yi lay teewal ndax amuñu baat seen bi ñu moo tax ma abbaat sama bopp maay kaasal leen bëgg-bëgg ma xaasal leen ñu ñoo leen indi baasal leen ko jox leen ñu lekk naan su naan wa ref la ngir nga gën ko mën a toppatoo yaatalal nef la yóbbu daara bu pare l'école ngir mu doon njëriñam ëllëg lu ko mooy rek rek yom dina ko fëlëx daf koy topp aw diir bu demee ba am samay at ñàkk xam-xam moo koy faat foog ni lépp koy diir bu jàngul Quran walla l'école topp mbedd mi tôt ou tard dina ko jikkool si maanaam dafay dem ba ës dootul jar kiis fayitam sax deram dël kiis si xolam mu sës te réew mi dootul mën a yaakaar ci moom bu bépp moom meloon ni moom si jur réew mi nan lay def ba fës ah yërëm leen xale yi ñu ngi joolu mag yi ah doom mooy doon ki gën nga koy gis muy màgg si xelam xam ni kii du tekk ci sàcc wala use gën bëgg nga fu ñu limee ñu baax daal di koy tudd mu bokk si ñii laale ba du gudd moo xam ci alal wala ci xam-xam mu nekk royukaay bu màggee tax der bañ ko ni e wuyukaay mu bokk si ñi dëkk bi mën a compter bañ a nekk compter cent mètres nekk këram geng si këram wala si booru yaakaaram diine joobam yàlla nekk keram bëgg nga suba sa doom ñu bañ ñi dafay boo dee waajur bu normal bëgg ëllëg sa doom daal day normal ràññal teel le përëm normal dëgg-dëgg moom ñaanul juddu yaa fi indi kon fexe responsabilité bi nga yor mujj mujj PIP SOM alxuraan bu ma te dem daara ngir bokk mën a am daara sëriñ bi jàngal ko wax ñu la nga jàngal ko xam naa ni yelwaande dëgëral xale daf koy jàngal ci laaya bi ni muy taxale bu mu taxale du dëkk sii ndax bu ëppee rek mu mbëkku sii bu utu jee ba pare lu mu lekk utal ko fu mu nekk def si boppam xam-xam bi mu doon ut si xamal ko ni mim xaaleb del mooy naar mooy ut si ngir mu mën a continuer mission bi bu tere gëmal ko ni yàlla mooy contrôler te métti du a téere dara du a jenguloo ak fu mun ci téere léegi ama jóob waa Sacré 1 yeah s'adresse à tous les enfants du monde, Aminata, la direction. Yeah. Oh, acca ah, ñu dellu soit ci sunu émission seetaan benn son daal je vois je vois may ko mm-hmm. sunu grand Pape moo daal la boo PDG mm-hmm. mais euh, métier bi mm-hmm. yaa y a des difficultés y a des hauts et des bas lan nga ci jafe-jafe waaw y a beaucoup de difficultés bismi voilà xam la photo du du dee mukk c'est universel mais y a y a des photographes qui disent que photo dee na tu vois beaucoup d'œuvres Cofrab maintenant bàyyi nañ photo ñu que portable yi bon man gis naa ci ay photographes yoo xam ne ñu ngi dafa mm. naa ci jël li may jël. Mm. déjà loolu dafa rey emploi bu bëree bëri. waaw dafa rey emploi emploi. ndax la nouvelle technologie. Mm-hmm. portable yi. bon nous on reçoit on on reçoit plus de photographes mais on reçoit des amateurs maintenant. parce que ils ils font des photos sur le portable iPhone. foofu mhm. portable iPhone soo defee photo ak nga photo si des 7000 Nikon amul différence. amul différence kay ay iPhone parce que image bi. voilà léegi nag mu des après lumière bi ak positionnement parce que voilà. waaw parce que loolu c'est des techniques yoo xam koy jàng. Mhm. mais daanaka loolu moo loolu moo ko rey. moo ko rey dafa dafa dee moi je un labo. Mhm. certes. ku photo yi da nga ñëw indi ko. effectivement mais photographe daal dafa dafa wàññeeku. Mhm. mais li ko indi nag aussi loolu bokk na ci mais le professionnalisme. Mhm. bokk na ci parce que euh, professionnel loolu du ko rey. Mhm. mais su fekkee da nekk un commerçant photo. jënd jaay jàngaloo ko. mais là facilement tu disparais ah. dëgg la parce que. voilà doo ci yàgg ah. doo ci yàgg. tu ah, disparais waaw da nga bi kat benn vibe ko fa nekk. ci leneen la nekk si leneen parce que bëgguloo gëstu bëgguloo avancé. dëgg la parce que man dama gis aussi euh, par exemple euh, dans les grandes entreprises fan yii dama dem ci benn euh, rencontre à Dakar. oui hôtel Azalaï. Mm -hmm. donc euh, UNPS di remercier de passage le président Badiane. mais j'ai vu des photographes professionnels. Mhm. xamante ni comme ni ñu koy yore yor seen appareil yor seen i am na ak des personnalités. y avait presque dix ambassades. voilà mais damay xam ne ñii tout. ordinateur disque tout parce que en photo. on te demande de préparer vos photos avant de venir au maanaam ñun nu ñuy def. ñu ñun ñu ko def ñun un étranger day ñëw rek ne sama photo bul ko laal tiireel ma ko noonu. Mhm. mais fii ñoom duñ naan la defal ma retouche defal ma defal ma loolu daf ñuy tardé. su fekkee vingt personnes ñëw nañ si benn ku nekk bëgg nga retoucher ko mais tu ne travailles pas la journée. moo tax loolu yëpp dafa ànd ak dafa ànd ak yoon dafa am lu ko accompagner. Mhm. voilà. tey euh, euh, soo soo soo soo mu yóbboon ci yoon parce que laalu ma def lu ma noonu da nga indi sa bopp. parce que photo waxu loolu. Mhm. daf ne la préparez vos photos. Mhm. chez vous avant de venir au labo. ñun du ñu lonk rek tiré. tandis que étranger su ñëwee photo ñu laal ko. Mhm. mën nañu porte plainte. dëgg la. donc tu vois la différence le plus naturellement voilà léegi nag un photographe dafa war a am disque dur mën na manipuler ordinateur. gis nga technologie fu mu dem. waaye léegi soo ko mënul photo tool foo ko retouché da ngay bàyyi. voilà ah, parce que loolu ça cause voilà cause problème. Ah. Euh, ah oui oui oui. lu mu ci war. Mm-hmm. yow nga jéem a def lu tuuba. Mm-hmm. xam ko mm-hmm. parce que connaissance bi dafa dafa yaatu trop. dafa yaatu. dafa photographe fu mu dégg formation ENDA wala war na war na dem. d'accord ñun à Dakar dañu doon dem formation. voilà pour xam. y a des y a des photographes qui le mhm. dem formation. am na su ma xamoon c'est un artiste naa xam nga ko. Cheikh naa dëkk HLM. c'est un artiste dafa day dem mhm. moom. moom lu lu ni kii rek mu dugg xam tout ça qu'est-ce parce que c'est un artiste. parce que dafa évoluer waaw dafa évoluer y a d'autres dañuy def formation. Mhm. mais néew na suñu métier bi. nga gis ñu ko gëm. ba mu jar leen yenn yi bis mi loolooy dëgg. dëgg la parce que côté emploi des jeunes. yow tu as créé ton propre entreprise. Euh, boo maanaam boo naan percevoir bu njëkk bu dee ku ci ne ak am cent cinquante mille ou bien deux cent mille par mois euh, ak y a eu le Covid-19. Mhm. aussi tamit difficulté yi ñuy rencontré mais tu es obligé de de diminuer euh, li nga naan joxe wala bokk nga wàññi sa personnel. Mhm. lan nga dund. te mhm. aussi tamit am na loo xam ne soxla nga ko. venant aussi de du gouvernement du Sénégal. wala yooyu lan ngay xaar ci par exemple nguuru. tey ñu accompagner la ci lu ni mel. waaw waaw waaw cest dire que euh, li may wax rek la c'est-à-dire que euh, dafay am euh, sélection toujours mais ñun ñi nga xamante ni ñu nekk petite et moyenne entreprise à chaque fois que ñu nii bind leen. Mhm. comprendre nga. Mhm. seen étude de projet def seen projet déposé. ñu ko sax xool. après il faut mu am euh, comme on te dit rek Sénégal il est relationnel. Mhm. da ngay bind ba pare gis ay nit ñu topp tout sans question mais su fekkee nit ko am personnalité la. doo mën a doo mën def yooyu. dëgg la doo topp ci ginnaaw kenn. je l'ai fait une fois deux fois bon après j'ai j'ai j'ai laissé tomber ba da bàyyi parce que la nga am doy na la say moyens doy na la mais. suñu la accompagner wul doo mën a accompagner seen yi moo tax tu tu as raison gis nga man. Mhm. à chaque fois sa personnel. Ouais. Ah, tu es obligé de parce que da a couvrir. non say say que faute mhm. bi ñëw na ak ay voilà comme tu dis rek technologie yu tout ça qui sort. bon voilà forcément day am ay voilà. donc. Euh, conséquences yi. conséquences yi. voilà. Euh, li mu indi si conséquence dafa bëri. trop trop. dafa bëri dafa bëri mun dafa bëri mais nag bon. voilà sant yàlla daal sant yàlla avec aussi les photographes qui se sont constitués en association. Hmm. yow nan nga dundee loolu donc noonu. vos relations avec euh, ce ce avec que tu travailles. Mm. moo xam waa moo xam euh, ñi nga xamante ne dañuy ñëw di euh, di def lavage de photo mais comme comment ça se fait auparavant tu les avais à tes côtés actuellement vos perspectives d'avenir lan nga teg ne lii kat actuellement. voilà actuellement actuellement je les ai plus ah. Mm -hmm. auparavant je ñu ngi ci man. waaw voilà mais lii indi rupture boobu toujours. Mm-hmm. des fois, on n'est pas roi chez soi, comme on dit. on n'est le prophète soi. Voilà, on mhm. Mais comme que man rek maa fi nekk Thiès soi boo xam ne maa fi yor labo. des ñu ci des ñëpp dëkkuñu Thiès kon. yeneen labo yi déedéet yeneen labo yi dëkkuñu que yow su fekkee da ngay am gis-gis rek naan ñëpp si man la ñu pour développer la région de Thiès parce que man quand j'étais mhm. man leen non Thiès laa jëm. gëm di gëm sa dëkk. gëm sa dëkk donc soo ñëwee Thiès doomu Thiès war jàppale. Mm-hmm. mais Thiès dafa dafa xaw si côté du ñu xaw a si côté côté boobu. dëgg la kay parce que xam nga photo. sax photo dafa dafa dafa dafa dafa doy waar. Mm-hmm. Euh, su fekkee ay nit nga nekk doomu Thiès xam nit ñi. Mm-hmm. nit ki il préfère làqatu la dem defi leneen que ñëw ñëw si yow. ñëw si yow mais loolu jaaduwul nag. mais xam nga loolu jaaduwul. da ngay jàppale sa man damay comprendre rek sa mbokk. yow da doon Thiès waa. Thiès waa bi am entreprise Euh, ubbi ko. Mhm. créer ay emploi di fay am ay emploi ku ci ne yaa ngi suturlu. ñu da nga war a jàppale sa mbokk bëgg sa mbokk. voilà mais c'est le contraire. jàppale sa dëkkandoo ça ça moom. je le pas. te man nag man dafa ma métti loolu. voilà euh, dogguma la grand. Mhm. da dem ci ay milieux yoo xamante ne Eau de Thiès. Mhm. mais da koy toj xar ko ñaar. oui. keroog nee naa la ci milieu bi ma demoon. Hmm. man ak ñoom Pape Faye ñoo fa nekkoon doyen Pape Faye yooyu Pape Faye je connais. nekk fii nag programme fay dañ lay nekk Dakar. qu'est-ce su Thiès yi duñ gis seen. mais mais li li firnde li ma la wax noonu qu'est-ce que lan laa la wax yow bis dama ne la bis avec votre talent là soo nekkoon Dakar kenn waxatu ko. mais bëpp soxla ma ko xëy na nag dañoo bëgg suñu dëkk rek. moo tax ñu def nii xam naa ne tout le génn moo ñuy arrangé. voilà mais pour te dire da ngay taxaw. ñaari pa phrase ngay développé nit ñi dañ naan la waaw. la voix que j'ai entendue là. waaw la Thiès gi non hmm. bëgg su bopp bëgg suñu mbokk tey jàppalante. ah ça ça je le dis hein. il est temps de le ñu la war a jàppale daal duñ la duñ lay daw. génn góor dani ma la la la ville la plus méchante au monde c'est Thiès damaa toog di imaginer wax ji ma wax ji dafa rëy quoi dafa rëy ci man dafa rëy voilà et pourtant moom la ñuy dund lu tax ak étranger bi wala boo waxuñu ñu sommes tous des Sénégalais lu tax kii jóge beneen dëkk bu ñëwee di am loo xamante ni loolu ak loola contrairement au Thiessois yi nga xamante ni am nañu talent wala boobu ñu dépassé talent bi waa jooju am c'est malheureux ñu tax ñu ñaanante suñu ah, ñu di ko wax. mais mais bi ñoo ci jàngal sax ñu nekk Thiès waa suñu demee ba mën duñu lay làqatu duñu daw. c'est-à-dire que c'est c'est c'est compliqué. mais c'est inadmissible mais loolu yëpp euh, kii duñu lay du enfin duñu duñuy nëbbatu wala man xaw ma je peux pas mën ma ko traduire quand même. en tout cas euh, borom li ñu naan yàlla mooy rootal max. max fa mu ne ca suufa suuf. a bien très bien borom jox la bien. ku la nga ne jàpp ci muy Babacar mii. Mhm. Euh, muy Seck. Mhm. muy ku ci mënti doon. mënti doon voilà. ku ci ne suñu borom la mu def ci yow. Mhm. sa wërsëg dana la ko jox. ala kulli àll gaañun ci li nga ne. dañoo xam ne dëgg la. parce que lu ñu mës a nekk nekk nga ca muy man ak Massamba ak Mademba te lu baax rek nga def moom ngay lebale rawatina la population ci en tout cas ci li nga ne bu ci mës a non non non non yàlla. jàppal te kanam la jëm. koo ci wax daal ma révélé la ah. koo ci wax. Mm-hmm. ñoom ñëpp du ñu ni ay nit ñu bon. parce que koo dajeel ne ko Pape Diop mu ne ah ku baax la di ñëpp. Mm-hmm. moo gën ñëpp mais pour mu ñëw ci man c'est un problème su ma ne décorté loolu nga décorté nga wax ma peut-être la man comprendre mais man je sais pas. koo ci wax. si ginnaawam. Mm-hmm. nga du munul du la wax mukk lu bon ci man. daf may tàgg sax. et Pape Diop mondial la boo. mais nag du ñëw ci man. international la parce que boo ñëwee. laajte Thiès fan la la boo nekk dañ naan la demal mondial la boo. demal lañ lay wax voilà. yow sa tour la jiitu foo xamante ne sa tànk àggu fa. waaw ah, loolu yàlla moo ko def. bi ñu bi ñuy tuddee Auchan. Mhm. premier Auchan bi nekk fii. Mhm. yow yaa fi jiitu Auchan. Mhm. te yow da nga nekk icône ci mon ci labo. photo qu'on l'accepte ou pas. kon nañu defaraat jikko yi defaraat toggaay bu baax. dafa am solo trop. am solo parce que yaa ngi contribuer au développement de la région de Thiès. yow da ngaa bokk ci décoru Thiès parce que Thiès mënuñu ko tudd di la bàyyi en reste. c'est impossible. moo tax tey ñu def émission bi focus ci yow. gën a xamal Thiès waaye ñu gën a jàppalante bu baax. nañu gën a bokk. li ñu moom gën a fonk suñu bopp fonk ñi nga xamante ni ñoom lañ nekkal moo xam muy suñu mbokk moo xam muy suñu dëkkandoo. surtout surtout. wax ko ci kaw wax ko ci kaw c'est important. parce que su ma jógee ne tey gouvernement bii. tubarkalla macha allah yàlla moo leen fa indi. ay weer ca ginnaaw ku waxoon ne tey président dina jóge ci Diomaye wala ci Sonko doo ko gëm. non di tout du tout du tout. ñëpp lañu yaakaar ne Ousmane Sonko mooy fal. wallaay wallaay wallaay. mais tey la suñu borom def. tey Diomaye mi doon taxaw fee di wax di tàccu pour Ousmane ko fal suñu borom moo ko jaarale ci moom jaarale ci Ousmane Sonko ni kii mooy falu tey. kon ñun war nañoo doylu te gëm yàlla suñu borom xam ne yàlla noppi na. ah oui ah oui ah oui ça ku nekk def na témoignage naan non Diomaye mënul yor lii mais suñu borom moo ko tudd ne kii moo doon suñu président. moo ko wax de wallaay. ana ñu wax ñëpp am nañ gàcce tey. maa la wax loolu bul sonn. bari na ñoo xamante ni c'est des autorités de la ville de bu ñu sañoon dinañ ànd ak Diomaye. liggéey ak moom mais mënuñu ko. ku mel ni Pape Diop wala mu mel ni Bismi wala mu mel ni Seck. ñoo mën a nekk interlocuteur. interlocuteur nekk ci diggante bi di ci dox ba ñoom ñu mën a rapprocher le gouver le nouveau gouvernement ñun dañoo libre ñu sommes des porteurs de voix porteurs de voix hmm. ñun dañoo libre comme Karim Xurum Xaat hmm. libre comme ki nga xamante ni moom mooy waa kër gi hmm. parce que suñu borom dogal na loolu ci ñun tey mën nañ gis benn autorité boo xamante ni dafa jóge fee ñu jël ko andi rapprochement ak yow mii muy Pape Diop boole leen ngeen liggéeyandoo parce que statut boobu yàlla def na ko ci ñun tout dañ koy sant suñu borom bu baax a baax kon boobu nañu wàcce suñu bopp àdduna loolu loolu la yàlla bëgg xol yi grand jox ci euh, bi. waaw la tiir tiir wax ci damay dem. waaw seulement seulement seulement seulement loolu moom mooy li nga xam ne moom moo moom moo am. waaw voilà nañu ñun Thiès daal nañu y a beaucoup talent. waaw mais nañu nañu dimbalante. mooy dëkk. nañu dimbalante xam nga li la wax c'est délicat. non c'est délicat. c'est délicat. waay man donc maa fi nekk Thiès dëkk Thiès juddoo Thiès yaroo Thiès yor fi labo. dëgg la. photographe nekk Thiès nekk ñu si man. ñuy ñëw si man dëkk ñu Thiès. c' est des arrivistes. voilà c' est des voilà ay deux ou bien trois personnes. waay euh, certainement su ma la tuddee rek kenn sax da nga ko xam mbàkkindooy. mbàkkindooy waaw. mooy mooy mooy mooy couvrir course bi. waaw course fas yi tout ça mbàkkindooy. mbàkki waaw voilà ak ci mm-hmm. euh, ay trois quatre la ñu nu mu toll. gars yi te xoolal dama bëgg ngeen di ñëw ci moom dal labo. sequma ci kenn xaar ma yàlla di ñëw ci bi. <laughs> ndax lii labo social la dem la tey soo ko ñëw voilà. te mbir yaa ngi ñëw nag. te macha allah bëgg ngeen ay programme te programme ñu dëgmal. voilà mondial la bi moo koy organisé muy Pape Diop. ndax photographe bu sañoon tey bés bu yàlla sàkk programme di am nga ciy mën di am sa wërsëg di ci dàq li ñu ciy dàq yóbbu sa njaboot kon dañoo dañu il de faire un retour à la source. à la waaye à la source parce que euh, maanaam daal nañ jàppalante. voilà nañ jàppalante nañ jàppalante quoi man lu baax laa leen mës a digal ak formation parce que métier bi dama ko jàng quand même. waaw gis nga la jeunesse maintenant ñu génne ISEP. ils sont bien maintenant média. gis nga ñoom ñëpp ñu ñëw ci yow. ñëpp si man la ñëw avec les amateurs donc yàlla xam nga saa bu dindee leen rek am na mu dugal. du tëj buntu tëj. forom déedéet déedéet du ko def mukk man maa ngi sant yàlla bu baax. mais dafa neex nga nekk sa dëkk bis mi. Mm-hmm. nga gis say mbokk. li ngay am nga koy partagé ak ñoom. ñoom mhm. xam nañ ma bu baax. Mhm. photographie ngay wax. koo génn laaj ko kan mi Pape Djibril Lô may kan. c'est parce que rajo laay waxee. non man ba ma yàggee ñëw ci sa. <laughs> Euh, ci sa ci sa ci fekk de photographes. mais justement. mais tey anamu. daanaka doo fi gis picc. voilà voilà donc mi ngi noonu. et c'est anormal. parce que je travaille maintenant en professionnel. Mhm. pourtant labo yi ñuy dem. ëpp ñu ma lu ñuy liggéey. man gis naa sama tos. xam nga nag gis nga. foofu dëgg dëpp voilà. ku fi ñëw xam ni yow. tu as investi bi demee à l'étranger da ngay ni di matos. ci ci ci liggéey bi lay lay dépendre. waaw mais yàlla daal. Euh, mais sant dañuy ñaan rek suñu borom. Uh-huh. Euh, comme émission bi daanaka euh, tubarkalla macha allah. mu ngi uh-huh. bëgg a jeex. Uh-huh. yow sa mot de la fin. lan ngay wax jëmale ci askan wi te balaa boobu sax damay jaajëfal Touba Xelcom Couture. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, Ibrahima Sourou dend ak euh, école Amadou Coly Diop. Mm-hmm. Euh, téléphone 77 258 31 64. ak waa marché central ñi nga xam ne ñoo nekk ci maquette bi waa marché Mosanté. képp koo xamante ni da ngay suivre RTT TV à travers ma voix ci émission Génération des Arts. Ah, ñu ngi lay jaajëfal ndax information yi muy 33 951 70 boo bëggee jot DJ Bismi muy 76 134 88 88 di jaajëfal koo xamante ni kenn la ci man di sama xarit muy euh, Djibi Sy muy inspecteur principal de la classe exceptionnelle des impôts domaine de Rufisque ak xaritam mu ngi koy wax euh, monsieur Alioune Badara Diouf nekk cadastre bu bu Dakar ak sama gars yi nga xamante ni ñu ngi may déglu. ñu ñi may accompagner saa su ne di ma conseiller di ma wax ne ma kat bis mi des fois del waxee nii del waxee na te des fois nag nit day juum. parce que nous sommes que des êtres humains peut-être mën nañoo tàng wax loo xamante waruñu ko wax mais ñu ngi ciy jégalu. waa police bu premier arrondissement ñu ngi leen di jaar di leen jaajëfal. Euh, waa police bu parcelle madame madame Diop ñu ngi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Euh, ak ñi nga xamante ñoo yor sécurité thiessoise et sénégalaise en général grand pape ce mot la fin lan lay doon. waaw xanaa di leen santaat rek. Euh, di leen sant di leen këram fu yéen ñi nga xam ne yéen les porteur de voix dafa am loo xamante ni euh, man xam nga lii mënuma ko fële. peut être li ma def foofu mënuloo ko fii. effectivement dina noonu la échange la. échange la waay. Euh, donc su ko defee rek yàlla na barkeel yàlla leen yàlla sàmm yàlla jàpp si jàppale leen si li ngeen di def. voilà li ma bëgg nag mooy. Mm-hmm. photographe yi mën a nekk en association cest di dire que mm-hmm. entité. Mm-hmm. tant que amul nit pour ñu bëgg dara def ko defandoo ko du sotti. sotti voilà su su ko suñu defee entité. Mhm. ñu xool ku ñu war a jiital ñu jiital ko. Mhm. mën a dem si benn base bu solide. Mhm. léegi nag suñu defee association boobu ba pare nag léegi. ñu xool nañuy def ba ñu nekk seen bi mën a def formation. parce que il refuse. voilà man ce que je n'accepte pas mooy les commerçants photo man dama bëgg nit ki lu muy def mu am formation au moins. suñ ko ci waxee dara parce que photo dafa am dafa am langage léegi. voilà média dafa am langage léegi. effectivement voilà. Euh, donc euh, mënuloo dem nii rek à l'euphorie. aveuglément déedéet non mënul nekk. parce que da dem ñu sant loo xam doo ko mën. Mm-hmm. beaucoup de xool beaucoup de photographes dañu leen sant loo xam dañu naan ko demal mondial ñoo ko mën te pourtant ñoom ñoom ñoo ko war def. léegi day ñuy ñëw si yow pare nga leen dem leen mondial mais amul sens. amul sens. Mm-hmm. Euh, war nañu a liggéeyal seen bopp. mais justement jàng ko. voilà apprentissage léegi loolu mooy problème africain ak sénégalais globalement les africains cest à que du ñuy bëgg du ñu bëgg def dara te bëgg ñu def formation. Mm-hmm. facilité baaxul. voilà loolu dafay poser problème. Mm-hmm. day poser problème su ko defee li mu leen di demande rek mooy ñu fexe ba nekk am association. Mm-hmm. une association jiital ñuy war a jiital. mën a dem sur une nouvelle base cest di dire que su su degré rek. danañ mën a def di formation danañ mën a woo ay nit ñooy defal ay formation mhm. parce que nit mooy organiser boppam quand même ah. voilà mën a avancer xam nga li tax loolu bis mi la mhm. gis nga suñu maam yi mhm. yaa yaa yaa cinquante ans ku leen waxoon cinquante ans soixante ans nga yee leen ne leen nit mi ngi wax portable dëkk ak dëkk wala ñuy gisante di wax portable duñ ko gëm <laughs> donc àddina lu ne mën naa xew voilà yàlla ñun doomu aadama. Mhm. li ñu mën a gis rek la ñuy wan. Mhm. voilà li ñu mën a gis rek la ñuy wan. suñu gis-gis dafa am fu mu koy yemale. maanaam yow bis mi am na lu lay romb. Mhm. nekk mbindeef te doo ko gis. voilà ah, donc. Euh, euh, lu nekk mi ngi am. te su ñu demee lu nekk day amaat loo xam te ni soo tëddee yàlla na yéex. ñu ne yee ne la bis mi am na sa ginnaaw da nga naan non loolu mënul ne. voilà su ko defee nañu fonk xam-xam. Mm-hmm. te di jàng balaa ñuy jëf. Mm-hmm. dafa dafay dafay tax doo yàq. formé wu wu. voilà formalisé wu dafay tax doo yàq kenn du la yedd. voilà jeunesse bi daal. Mm-hmm. loolu laa leen di. dénk voilà. voilà à part ça bég na trop. voilà euh, dégage nañ fi vraiment ay wax yoo xam te ni ko déglu rek. mën nga si jëlee njëriñ. mën nga xam voilà. du ci xol que dëgg ndax euh, maanaam daal comme li wax rek ñu leen ko faire chez soi. Mm-hmm. mais du tee tamit nit bu fekkee dafa am loo xam ne daf ko ressentir. Mm-hmm. war na mën a jóg am audace wax ko. te mm-hmm. yàqu ci dara. parce que waxuñu lu bon wuñu kenn dépassé wuñ kenn. mais on a bel et bien le droit le droit de dire de prononcer la vérité. jëmale ko ci ñi nga ñoo ko war a dégg. bu ko defee nag am na ñoo xam ne peut-être bu fekkoon dañoo am benn rancœur sax war nañu mën a dellu l' mm. mm. ah, émission Génération Désert. Mm. Euh, bu ñu amee invité rek xamal ne dañoo def focus. jëmale ci nit kooku parce que daf def lu rëy rëy. te ku def lu rëy am lu rëy. grand po grand sa las parole lan la. xanaa vous remercier nag bis mi. voilà vraiment je remercie di la ñaanal nag. parce que yow euh, euh, ndamu Cees nga merci voilà léegi damay toog ba si àgg xool la gis nga ni ma lay xoolee dama naan mais pourquoi Bismi mm-hmm. voilà pour pourquoi nit ñi voilà. mu ne fi ba tey mu nekk fi ba tey quoi. <laughs> non non attends je te dis <laughs> voilà peut nag yàlla doo mën na am dafa jotagul. mais pour quoi le monde Sénégal yëpp xam ko. parce que mi ngi nii. voilà voilà l'art est là. Mhm. Euh, lépp a ngi fi. tout y est macha allah. voilà tout y est mais. Euh, donc xam nga kon man je te suis. donc loolu ñaanal la dañu yàgg suivre rek. voilà loolu ñaanal boo ñu ñaanal rek. voilà man daal vraiment. waay waay. Euh, kii la vraiment sama idole nga. d' accord merci voilà donc ma lay sant plaisir partagé en tout cas cette émission c' était Génération Désert focus sur euh, monsieur Pape Diop Photo. Mm, mm. PDG nekk fii ci marché central jàkkaarloo ak Auchan bu Thiès di fa jaaree aussi nuyu waa Touba sëñ. Ahmadou euh, Sougou di ko ziar sëñ Anban Sougou ak euh, sëñ Ahmad Mbacké di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuy nag euh, waa Thiénaba di nuy aussi tamit ki nga xamante ne mooy Fodé Konaré ñu ngi koy ziar sunu xarit di nuy aussi tamit sëñ Babacar Mbengue mu ngi fële ci marché xel Xelkom di nuyu ñëpp bépp autorité bu ñu suivre rek en tout cas ñu ngi leen di taalal sunuy loxo. di nu tamit suñu partenaire bi nga xam ne moo mujj ñëw euh, parce que tous les jeudis ñu ngi rajo Zig FM 92 point point 3 euh, donc nag tous les jeudis de 15h à 17h dañuy animé foofu émission bu tudd plateau musical moom déjà jël na sponsoring 2 mois. Euh, accompagné yu ci euh, émission yi ak aussi tamit euh, de des des passages de de de spot publicitaire pour un mois. mun am ñaari contrat yi dañ ko def ak moom. muy établissement EDM. EDM nag dañoo bëgg tamit nga accompagner ñu fii nga xamante ni moom mooy RTT e TV en même parce que. ku mel ni EDM dafa mel ni Pape Diop ci ñun. Mm. dafa mel ni aussi yeneen autorités yi ñuy accompagner parce que fépp foo ma nekk rek ñoom dañu ne. dañuy accompagner ci lépp lu ñuy mën di def dinañ ci dugal seen xaalis. seen xaalis kon Pape Diop mondial la boo xam naa ne incha allah dañu accompagner ci ATT TV. incha allah jël contrat mm. merci beaucoup euh, doyen. voilà am lu dafa am lu ma lu ma fàttewoon aussi. parce que euh, ñi may liggéeyal samay nawle lañu. effectivement voilà muy Ndiaga Fall dëkk Thiali. Ndiaga Fall waay. Habib Ndiaye maa ko yar sama doom la. Habib maa ko yar maa ko jàngal métier. d'accord euh, Matar Ba ñu naan ko anglais maa ko tuddee tur boobu. d'accord ñu Euh, ak Baba Ndiaye. Euh, voilà surtout Ousmane Ngom la mi ngi dëkk fii ñooñu. ñoom ñoo ma entouré. ñoo nekk ci place ba. voilà nekk ci place ba. mu ñu nekk ay boy yu yaru. lu baax la jiital ma nag. Mhm. te gënuma leen parce que yàlla rek mooy def njiit. ka gën yàlla rek ko xam. dëgg la voilà donc ma leen sant leen gërëm parce que. Mhm. su ma ŋaangee balaa may wax sax def nañu jëf nañu mosuñu am benn problème. wala ma leen di sant di leen di leen këram parce que nag ay nawle la ñu nit ki sa wayjur sa doom ñëpp da nga leen di nawloo soo bëggee dem loolu moo am solo te ñoom def nañ ko mhm. ma leen di sant di leen gërëm aussi ñoom it kontaan nañ bu baax a baax merci euh, de RTT TV Babacar donc nag euh, maa ngi seen suma siste fële <laughs> ok ñu ngi leen di bëggee ñoom ñoo nekkoon ci euh, technique bi ci cadrage bi ak ci montage yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax nee naa leen bu fi naayisee affaire yi bu cliné rek mm-hmm. image bi bu setee leeree rek ñoom la muy As di Babacar ak Aïcha ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax merci à la prochaine grand pape merci beaucoup merci beaucoup merci merci beaucoup